ginnaaw ba réewum Sénégal tàmbalee ñàkkum coronavirus bi waroon am ci biir réew mi mu mel ne confiance bu bëri amul ci sénégalais yi ci vaccin bi nga xamante ni mooy Sinopharm jamono ji weesu ñu ànd lu tool ci téeméeri junni ak lu tegal ci ay dose ngir ñàkk askan wi teg ci benn boo xamante ni andiwaat nañ ko fan yi jëm ci bi nga xamante ni moom mooy AstraZeneca ñaari fan yu ñu génn dëkk yu bëri daa tàmbalee bàyyi boobu vaccin nga xamante ni day andi jafe ci wér-gi-yaram waral askan wi ñu ci bëri seen xel ci li nga xamante ni moom mooy boobu vaccin Euh, si un conseil à donner au peuple sénégalais, je ne pourrais pas dire de laisser le vaccin parce que ça sera un peu arbitraire. Ça sera un peu arbitraire. Je pense que c'est plus à nos autorités en fait de rassurer le peuple sénégalais parce que le Sénégalais, lui, il, il a peur des effets secondaires. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Alors c'est à nos autorités de montrer l'exemple peut-être à, à, travers des campagnes de sensibilisation pour expliquer au peuple sénégalais, voilà telle, telle chose qu'il y a dans ce vaccin. Donc c'est pas dangereux peut-être pour votre santé. Au contraire, c'est pour votre bien en fait, je pense. man de lu ma ci mën a wax mooy comme comme yeneen dëkk yi jug nañ ñoom nee nañu affaire bi dafa xaw a kii man pour man nguuru Sénégal war nañ mën a taxaw xoolaat mbir mi ba xool xam ne jaar na yoon bu fekkee jaaru yoon ñu arrêté ko. ndaxte tam bu fekkee ne dañ koy jël dugal ko ci population bi tëj nañ nit ñi at bëgg encore vacciner ñu encore muy indiwaat encore beneen problème te nit ñi fu mu nee ni population bi dañoo gën a ndóol nit ñi dañoo gën a sonn kon affaire bi war nañ ko xool ba xam bu dee lu baax la ñu ñu indiwaat ko bu fekkee baaxul nañu ñu ko man loolu laa ci gis. man ànd naa ci ñooñu parce que lu leerul daal leerul bu doon suma sago daal ñu xaar bañ yàkkamti dëkk bu ci mel ni France ak Allemagne daal di bàyyi ndëkkaw li nga xamante ni mooy boobu vaccin ba tax ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi di ñaax ñi di njiitu réew mi ñu daal def comme dëkk yooyu ndax li nga xamante ni mooy boobu vaccin day andi jafe-jafe ci li nga xamante ni mooy wér-gu-yaram nit ñi. voilà je trouve que loolu rek mooy raison bi bon c'est vrai que feebar bi tamit première la donc vaccin bi xëy na man sama gis-gisu bopp vaccin bi pour lan mu gaaw a génn c'est parce que les ont été mis à la disposition de presque toutes les bon laboratoire yu bëree on les a doté nañu waxante dëgg gars yi fàtte yeneen feebar yi sax jublu ci boobu. waaw lépp daal luy dugg ci yaram moom war na mun a leer surtout loo xamante ne dañ koy dugal sa biir deret war na mun a leer bu leeree moom moo ñu gënal. ay nee fii naan fii tubaab bi nit ko ñuul dafa dëgër kii ñun bu ñu feebaree li tubaab bi defar moom la ñuy fajoo kon war nañ ko seetaat ba mu ba mu leer bu fekkee leer na moom amul benn problème Donc, euh, je dirais sur les effets, je ne pense pas que ça, ça, ça, ça, dépend de que tu sois européen ou africain. Je pense que les effets, ils seront les mêmes. Ils seront les mêmes à moins qu'il y ait autre chose vraiment prévue pour, pour les Africains. Mais actuellement, moi, je ne serai pas prêt à me vacciner, comme je l'ai dit, parce que je ne connais pas en fait les composants. ci ñenn ñi dem bay xalaat ne mbiru xaalis moo ko indi tax ba ku ci nekk da ngay bëgg a jaay ci vaccin loolu bokk na ci li nga xamante ni mën nooy jàpp moo waral ñuy wax na yenn vaccin yi baaxul. dans l'aspect euh, économique ak euh, bon xam nga ñu ngi ne c'est la guerre des vaccins donc y a tout ça mais c'est doy daal choix bu difficile la. instant wax dëgg yàlla pour te dire vrai je suis pas encore prêt. ginnaaw bi ñuy wax wàllu efficacité ci vaccin Sinopharm bi nga xamante ne mooy AstraZeneca ñuy wax ne da indi jafe-jafe ci wàllu deret ci ñi nga xamante ni jot ñoo jël boobu vaccin tax ba dëkk yu bëri fi mu nekk nii tàmbali nañoo bàyyi boobu vaccin ngir xool lan moo waral yooyu jafe-jafe muy indi ci askan wi.